référendum bi muy voté waa wala déet ci la ñuy mën a xool ci mbirum assemblée nationale honorable ñeenti législature def na ko je pense que nañ ci dellu si mais war nañu xool ndegam am nañ possibilité tas assemblée bi pour may ñi fi nekk tey les gouvernants une majorité confortable pas majorité pour tàccu mais majorité boo xamee ni y a quatre-vingt et quelques euh, kii yu ñu war a yóbbu assemblée projet de loi mais nga dem ci assemblée boo xamee ñu ngi la naan non ñëwal bul ñëw euh, xuloo ak yu mel noonu est-ce que loolu boo fa yóbbee ay projet de loi dañ ci dem pire assemblée boo xamee dafa ñëw ne ni débat d'orientation budgétaire nga xam ne c'est consacré par les textes de mois consacré par ñun suñu législation loi de finances ak yëpp nga ne loolu loolu lañ ko fi defee sous prétexte que am na premier ministre bu tontu benn député te waaw. militant moo moo moo mu tontu ko. ci tontu boo xamee ne moom yónneewu leen officiellement exactement man loolu je l'ai dit à plusieurs reprises c'est-à-dire une correspondance officielle du premier ministre ne s'adresse pas à député. day dem directement ci président assemblée nationale par rapport ak benn question muy le le par exemple euh, déclaration de politique générale bu demoon ba ne ni du ko def du ko yónnee député day yónnee président assemblée nationale ne ko. war naa def nangam ci sa institution kilifa nga ngay deuxième personnalité de l'État man kilifa laay waxal du ma wax ak maanaam koo xamee ni yamawuñu dayoo. nuñ ko mën a ministre chargé des institutions. bu nekk seen diggante. bu nekk ci seen diggante. en réalité ba nga xamee ne jafe-jafe du ci am. Euh, affaire magistrat yi président li mu def c'est louable.